Diop eh eh gàll bi ma dëkk nee na def naaj sama maa ngi nuyu <laughs> ay Ablaye yaay fay yi nuyu nañu Alioune di Kouthia numéro 2 kooku moom ma nga ca Italie Doudou Ba président Abdoulaye Ndiaye Sët mbay Pape Modou Mbaye Aji Maguette Moussa Konté Abdourahmane Ndaw ñoom ñëpp ay taalibe Cerno Abdourahmane bari nañu waaye tamit di nuyu Amina Savage ak Anti Fatou Savage ña nga ca Londres chéri Pape Modou Dieng du nuyu na képp koo xam ne yaa ngi ca Banjul Sarekunda Gambie ñoom ñëpp maa ngi leen di bégal di leen gërëm di ñaanal tamit ki nga xam ne nag moom mooy euh, Jaliba Kouyaté anniversaire bu ne xam naa nag euh, ñu ngi foofu ca Gambie incha allah da ngeen ñu fa gis euh, ci euh, anniversaire boobu ñu ci nuyu nag képp koo xam ne yaa ngi foofu ca Gambie waaye tamit di nuyu Tening Sarr madame Dramé soxna yi Modou ñoom Aline Ana Ba ñoom Matar Dieng nuyu nañu leen Abi Faye ñoom Sët Mbaye waaye ñoom Pape Modou Mbaye jàmbaar ñoom Doudou Ba Abdourahmane Ndaw ñoom ñëpp ñu leen di gërëm di leen sax di nuyu tamit Babacar Tandidi ak Ibou Ndoye Muntaga Thiam Mouhamed Daha Thiam ñoom ñëpp ay taalibe Thierno moom mooy Pierre seetaani li nga xam ne nag moom mooy ñaari góor ñi nga xam ne kenn ki saraxula la kenn ki xaalpulaar la ndax xam ngeen ne ñooñu ay acteur de développement nañ rawatina ci li nga xam ne moom mooy immobilier boo seetee nag ci njëkk a investir ci Sénégalais yi bokk na ci ñi nga xam ne ñooy saraxula yi ak xaalpulaar yi nga xam ne nag ñoom xamee nañ leen ci jom ak fulla ak liggéey ñoom nag nee nañu projet bi nga xam ne nag moom mooy projet Macky Sall lu ñu doon doon doon tamit ay citoyen neexu leen ñaari xarit yi kenn ki nag euh, saraxule la France la nekkoon ñibbi si Sénégal investir ay immeuble bokk ci ñi nga xam ne ñoo njëkk def location ci Sénégal ñu dem seeti ko Pape Samba ak Pa Samba Yoro ñoom ñaar seen waxtaan na lay mujjee kenn ki saraxule la ma nga tuddoo Tandigora tuddoo Modibo Alaaji Modibo Tandigora selema comme sali ango bari ina badra il n'est pas encore venu samba ana bara ana du an ko baari ko duro ko modibo eh ala eh mo oy oy oy oy oy eh vous êtes tanja ça va tu vas <laughs> ça fait longtemps eh. ça fait longtemps toi an ko baari ça va bien merci baara nu ano baari man kontaan naa trop ci suma gisee yow dama kontaan parce que yow ne nga Samba Yoro suma xari nga benn bakandi lii nga lii dugg ci location. man ma ah, loolu konoon kenn weddiwu ko kay. waaye fan yii sama kàll nekku tar bu ma dégg la ñu war kay kol nekku tar suma kol nekku tar ndax du ñu dem France ma yow depuis vingt ans boobu léegi ñu nekk liggéey liggéey sunu liggéey sunu kër fii taw sunu xeet ñu bari yow sax am nga Ndakaaru étage. waaye man konoon fale daar daara kii gannaaw ah, wak wuura mu am sama mu tam foofu sumay kër yoo xamante ne dama am touriste yoo ñëw foofu uh-huh. nee naa la ah, mu tembe ka eh, hmm. boroo nun am ayu mbaay woo duro hmm. man olof leerul man hmm. saraxule la maa ngi tudd Alaaji Modibo Touré Tanji Gora man ma njëkk def location Dakar et Tali Lassana effectivement Senghor yi bul waat naa projet boobu mu teg ko ci suuf Ablaye Diouf Abou Diouf ñëw naa mu wax projet boobu ñu teg ko ci suuf yi Ablaye Wade xalaatu ko. Ah, nee naa la konoon depuis Senghor la woon de depuis Senghor la woon. Eh, nu nu lu sarkule de Paris. Hmm. mu jël xaalisam mu indi Sénégal nu nu ña ña ñamoo. dañoo investir ah, ba sonn dañoo investir ba sonn. droit yu jàmba olof bi moo setu olof bi setu ah. mais nga xam ne man nekk na pasar xule boo xam ne jënaa suma xaalis jëf ko Sénégal pour ma tabax immeuble pourquoi Macky Sall wax ne immeuble bi yow ne bi yaa nga jox quinze mille la ko loué mu ngeen mu wax ne du loué quinze mille da ko def huit mille cinq a laaj yow laa bëggoon xule hmm. wana tous les ku sant Tandian ku sant Trocé Modibo Kouyaté ku sant Keita ku sant nekkal a boo xam ne saraxulingaa nga ñëw ñu ànd ñu def marché parce que ñu mënuñu nangu pourquoi pourquoi ñoom ñu war ne ku fay cent mille francs nga wàññi ko nga def ko soixante-cinq mille moom moo ñu a suuf wala bâton wala keku ma fema fema ana ko braya mu fi ma doon fare gars yi ñu ma doon fay néegu ñàkk bi ma yoroon fay deux ko ba ci ci mën dara muna dura na ya kumba fu ya dura na ni aye mu na si mu dura awa dron granga dron ma dron nga prama wana kobi mhm. wana lumule nena amna negunya mhm. mungo lu 2500 mhm. ne ma sha nyona pour wali pour ko 500 fo ko tek non non mom la pour ko kam makis makis sale fo tek bobu fan nga tek bobu dina wote même sama village chéri nek fofu ñom jegal ndol ndol dina len wo ñu def fenn marche dañ Fouta Matam ba Dakar ñu débarqué ñu kii marche. tous les Sarakoule bu sant eh, Marega tous les Sarakoule bu sant Koulibaly tous les Sarakoule bu sant eh, Fadiga tous les Sarakoule bu sant Tandjigora. Hmm. tous les Sarakoule bu sant Tandian. Ah, la guerre ñoom ñu sant ci maire foofu sax. naan ñëpp génn na locataire ñëpp génn ci suuf tu tëjatu luwetu daa tëj kër bi damaa tëj suma kër ma dem suma. juma luwee nit pour mu wàññi ma eh, bañ. Eh, ko saa waay boo tëjee du baax de. dama tëj. boo tëjee dama waa Macky Sall c'est pas normal Macky Sall li nga bëgg. dañuy négocier rek. juma eh, négocier boo tëjee du baax. juma négocier par la force juma wàññi wala ma tëj suma kër ma dem si yoon pourquoi c'est pas loolu munu nekk munu nekk munu koo ah, nekk. waaw kenn bi kay ñoo nekk koy nangu. c'est pas comme ça ala mana teera kayra la ala barka moom kay lii ka kam li fañ mbir mooy kan nañu oh. c'est moi gora tandenga tinga kono tanga brana wunyi nkanga tanga ana mani ko location sara kule mana ko pri ko na France mantala joli Paris kunanga ye ko sombe ya aale <laughs> ngoonge munu nekka pala force dañu jona munu nekka pala force il faut normalement on doit laisser laisser les prix les normes il faut c'est pas c'est pas normal il faut nous donner laissez les prix normal laissez les prix normal aboyo laissez les prix normal tanjikora e sara xule modi bo tanjikora e modi bo e tanjikora e lasana e kulibali e fadiga